bismillah. àgg leen suuf. sëñ bi naan ngeen déglu da ngeen àgg suuf wàcc leen si suuf àgg leen suuf. yéen ñëpp gis naa leen. ne yéen ñëpp gis na leen. waa kër Leyti Seck yi. waa kër Leyti Seck yi. seen daayira bi. seen daayira bi. yéen ñëpp gis naa leen. na leen. maa ngi ñaan yàlla. mu ne mu ngi ñaan yàlla. at mii di ñëw. at bii di ñëw. yàlla ba leen xaj ci saal bi. yàlla bu leen ci saal bi. yéen ñëpp. mu ne yéen ñëpp. maa ngi ñaan yàlla. mu ngi ñaan yàlla. Uh-huh. daayira Mbuur. ñoo ñëw léegi ñoom indi nañ liñ indi bagage yi nekk nii waa daayira Mbuur ba mbokki ah, baa ngi waaw waa daayira Leyti Seck mu ne waa daayira Leyti Seck gis naa leen mu naa leen démb leen démb. naa leen barki démb. gis na leen barki démb. naa leen tey. gis na leen tey. taxawaayu layti bi. dara manqué wu ci. dara manqué wu fi baax. Mor Mbengue mi mu fi baax. di rakkam. mu di rakkam. ba ko fi. Daawda Seck bàyyi ko mu wutu layti. layti. wutu Daawda Seck. wutu Daawda Seck. manqué wul fi dara. manqué wu fi dara. su ma demee Dakar. waxtu woo nekk maa ngi koy gis. waxtu wu nekk di ko gis nag. di ko gis tamit. bu di soxnaay lay téye. mu ma respect ci ñoom. manqué wu respect ci ñoom. bu di doomi lay téye. bu respect ci ñoom. manqué wu bu di sëtam yi. maa ngi leen di gis na ko layti daan gisee. maa ngi ñaan yàlla nag. ñi nga xam ne mënuñuy ñëw. mënuñoo ñëw. te ak mage tax. na leen yàlla may wér gi yaram. ñi nga xam ne fañ faatu. ñi nga xam ne dañoo dëddu dañoo faatu. ànd ak Leyti Seck. leen yàlla may aljana. na leen yàlla may aljana. bi jaahi rasulillah. jaahi rasul. fàttewuma. mu ne fàttewul. maram sekk. maram sekk. fàttewuma ko. fàttewu ko. bi mu fee bàyyeekoo. bi mu fiy bàyyeekoo. ba ma ñaanal ñëpp. ba mu ñaanal ñëpp. mu ànd ak ñëpp génn. mu fa dëppaatu ba nit ñi. sukk ci sama kanam. sukk ci kanamam. daal di dindi ween wa. wan ma ko. wan ko ma lii ma jaaxal. moo tax may dem Dakar. waaye su taxutoon suma ween wi. nee damay ñibbi Jolof. booba. booba ñi mu àndal. ñi ay ndaw lañu. kenn gisul ko ci. kenn gisul mii. Mor Mbeng mii. bokk ak moom ndey. bokk ak man mii maa ko gis. ba ma ko gisee. ma ko gisee. ma xam ne lii feebar la. mu xam ne lii feebar la. feebaram dee la. feebaram dee la. suma addina yàqu. addinaam yàqu. ne ma ne dëkk ñàkk naa mari. ma ne dëkk ñàkk naa mari. mareem. mareem. loola le. mu ne loola le. moo tax du ma fàtte mareem. moo tax du fàtte mareem. du ma fàtte Daawda Sekk. du fàtte Daawda Sekk. lépp loo xam ne. lépp loo xam ne. luy ñaan yàlla la. luy ñaan yàlla la. Daawda Sekk moom. Daawda Sekk moom. xam na ne. xam na ne. su ñëwoon dina jàppandi woon ci moom. su ñëwoon dina jàppandi ci moom. moog lay ti sekk. lay ti sekk. ci man mii. ci moom mii. la dëkk. la ñuy dëkk. dootuñ dëkk asalem. seen doom ya. seen doom ya. yéen ñi am. lañ am. doon le doon am. lépp lu am. ci dépense. di ko jox seen yaay. di ko seen yaay. di ko togg di leen ko jox. mu nga bar sàq. man la gën a gërëm. man la te bañuy miraas. doomam yi lañ ko jox. wante fam nekk mu tëdd. xam na ne. xam na moromam doomam. du nekkul xam na ne duuma moromu doomam. ci barsàq ga la ma ko yónnee ci barsàq la ma yónnee daawuda ci barsàq ak Mariama Seck kenn koo sant Seck koo dëkk Linguère xamu ko moo tax booy leble lebalal borom xam-xam lebalal nitu yàlla maa ngi ñaan yàlla. nee mi yàlla. bum doon xatam mujj. mujj. ci man. ak yéen. maa ngi koy ñaan yàlla. nee yàlla. yal nañu yàlla may téeméeri at. fooguma ko nag. na foog ko naa ci am yaqiin. nee foog. ak yaqiin du benn foog moo di lan saxaar sële di tàkk safara moo nekk ci suufam loolu moo di xam-xam boo xam ni dëgg na wante mu ne wante xaqul yaqin xaqul yaqin dëgg gu wér kéng dëgg gu wér kéng moo di ne moo di ne safara saa ngi nii safara saa ngi nii nga dëgg ci nga dëgg ci yaa ko gën a xam yaa ko gën a xam ka koy séen ki koy séen fële kay seen safara mu ne kay seen safara ak ki dëgg safara si ak ki dëgg safara si ku ko ci gën a xam ku ko ci gën a xam dama xam xelmul yaqin bu baax ne nee na dafa am xelmul yaqin bu baax ne من مي من مي دنام تيميريا يعني. دنام تيميريا يعني. عوين عوين تنعرفو بولين نيخي نين يوكتي waaye li ma wax moom danaa ko am te ñaanal naa leen ko te da ngeen ko am incha maa ngi ñaan lay ci sekk ma nekk bar sàkk ak daawuda sekk ak lu biram sekk jut yenn nañ dem aljana barkeb salaatul fatiha barkeb sama sëriñ boo baax ba Seexu su ma sëriñ ba su ma ko waxee bu xel daj suma baay Seexu tiijaan laa wax ci suma baay nag nee na ci laa jaar. moom suma baay. moom baayam. ba xam Cheikhou Tidiane. ba xam Cheikhou Tidiane. ba bëgg Cheikhou Tidiane. jaan suma baay ba ma juree. nee tarbiya ma. tarbiya ma. tarqiya jàngal ma. jàngal ko. ma kenn ci àddina. bàyyeewul ma kenn ci àddina. loo mooy ak. yàlla. ak yonent bi ak mu watti ma fi. mu bàyyi ma nekk fi. mu nekk fi. bàyyiwul ma commerçant. Ah, ma boo am xaalis. bu kam ma bàyyee. mu gën a am xaalis. muy Leyti Seck. muy Leyti boo njëkk. nee na juróom benn la. waaye daan na ko bokk ak man. su ma ñëwee. mu jox ma ci saakoob ceeb. mu jox ko saako ceeb. saakoob ceeb. saakoob ceeb. cent kilos. cent la daan dox. waaye nag. la salaire ba tuuti tuuti. li ma ci jox saakoob ceeb. saakoob ceeb. booba saako dugub. boobu saako dugub. mu ngay jar. mu ngi mu jox ma njëg 3000. mu jox lu ma jox paas. dee lu ko jox mu ne mën nañ jaar te Mor Mbengue. suñ demee. suñ demee moom it mu am lu mu yëkkati jox la. moom ma ànd moom. mu ànd Mor Mbengue. Mor Mbengue. yëkkati ñaari junni jox ma. yëkkati ñaari junni jox ñeenti junni jox ma. Daawuda Seck yëkkati junni jox ma. Marème jox ma. Marème su ma ñëwee. ceeb moom du manqué. ceeb ci oxset wi. ci oxset ba suuna jor. jor. loolu fàttalewu ma fàttewu ma ko. ko. te booba. te yéen ñi kenn du duuti. ñun ñi ñëpp kenn du maa ngi lay ti sekk rek. nee na moom ba maay Leyti Seck. nee na man ak Leyti Seck. moom ba maay tëdd moom ca Daara ja. ca benn lal ba. mu féetee ma ca miir ba. ma féetee ko ci biti. man muy teel a jóg. moom di dem ca tool ya. di dem ci tool ya maa daan féetewu biti. ci bunta bi su ma jógee rek. su du ko yëg. ko ma wàcc ko ci lal bi. dem sangu. dem sangu. dem ca tool ya. su suñu ba sottee. mu ñëw ci suma bay. mu ñëw sama bay. ndékkeeg baayam. ca boppam ba. xeenu ba. añ andil ma ko ca tool ya. andil bay. mook bu loolee. bu ne loolee. booba papi sekkeewu ko de. moo tax. suma digg ak kenn xaju fa. yàlla rek. ak yonent bi laa koy seedeel. la koy seedeel. ba nag. bi mu fi bàyyeekoo léegi. bi léegi. yéen ñii. mu di doom mu amul ci kenn koo xam ne amul ci na taxawaayam layti manqué ci man muy soxna yi muy amul ci koo xam ni amul ci na manqué na layti ci man maa ngi ñaan yàlla sant naa ci yàlla it sant na ci ndax dem naa ba ci turandoor nee na dem naa ba ci sët te du fi am te du bu soobee yàlla. ku ci taxaw. yàlla na nga xam. ku ci xeeb sa wërsëg. waaye na nga seet. yàlla na taxul la bëñ buy métti rekk yàlla na nga gëm yàlla. xam ne. yaa ngi ci loxo yàlla. yàlla. neewal ci loxol kenn. nekkoo ci loxol kenn. nekkoo ci Samba Boy. nekkoo na leen yàlla musal. nee ci yàlla bind leen. afa xasibtum ndax dangeen foog ne ndax da ngeen jort na man yàlla mi leen bind annama xalaxnaakum xamal naka bind nañ leen yéen doomu aadama habasan ngeen di càppaaculi bu leen foog loolu fa am lu tax ma bind leen moo di ñu xam li tax mu bind ñu gëm Muhammad te ñu gëm ko. ne moom lañ yónni. ñu topp li wax. ñu bàyyi ay tereem. lii la ñu yàlla sant. lii la ñëw. Cheikhou Tidiane ñu sariya. feddali ne nañ julli ci yonent moo tax. waxtu woo ne. waxtu woo mii nelawagul. man biig ci guddi. kii la xam na ne nelawagul. moo mën a tëddoon. tëdduma ak soxna. tëdduma ak kenn. tëddu maak alquran tëdd. moom ba bët set. fajar. ma julli. te reeru ma ma fande ci guddi gi. te rey naa gàtt na te rey mosuma ci wax bi ma jógee. bi mu jógee. cere. laa siimlu. la ak baaseeb sëp ci fajar gi. bi ma julee ba pare. te nelawuma. maa ngi nii suma bët yaa ngi nii. mu ngi nii nelawagul ba di préparer bésab suba bi. ñu ngi ñaan yàlla. nee yéen itam. bés boobu la jaral leen ko. jaral leen ko. ngeen tëdd mu xat. ngeen nyak mu xat ngeen ñàkk mu xat ngeen ñàkk mu xat ngeen muñ ko ngeen muñ ko ngeen xiif ngeen xiif ngeen togg ngeen togg ngeen jox nit ñi ngeen jox nit ñi gañ siri gañ siri dinaa la jox ñaari nag dina la jox ñaari nag bal wut ceeb bul wut ceeb bal wut diwlin bul wut diwlin ci añ nag wa njëkk wa na di añ na nekk añ nagu ñaareel bi na di reer bu dee ceeb bu dee bi ñu jox la loo wax ci ceeb. ñu jox la ko. loo wax ci dëwlin. ñu jox la ko. yàlla. ak makki Seck Macky Sall. yàlla. ak Doudou Ka. yàlla. ak Amadou Ba. ak Ba. Amadou na ma ñaari nag. ak xaalis boo xam ne. ak xaalis du ko xam. <laughs> kooku la kooku foofu laa ci xema moom yal na ko yàlla jàppale bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf waaw Mor ne mu tànn ci kàddu wala xale yi tuuti yàlla naa ko mën a yeggale nag waaw damay seede waatal Alaaji Tayru Ka rek man ok juillet 1964 la fi ñëk ñëw at mu jot ma ñëw fi ñaar mbaa ñett yoon su ma fekkut bitim réew kër Faat ñaa ngi muy wax fi lay di bokk dafa namp jox ma namp maay caat mi juróom-ñaar fukkat ak ñeent la am maay caat mi indaale sama njaboot indi njaboot ak lay teeg doog daaw daag rek bo abar sak ñun dénkaane lañ yow xam nga loolu wóor na la ñun dénkaane lañ dénkaane amul lu muy wax ak lu muy lu muy tànn ak lu muy def bu nekk gauche mu ne gauche bu ne droite mu ne droite boo ne jógal mu jóg boo ne toogal mu toog comme li ngay wax toujours rek màggatam pël nga bu ne ngummee mu jóg taxaw njoddee mu toog ñun noonu lañ toll ñun daa rëb lay ti sekk bii dootu daay rëb daa du dar daay rëb kër lay ti sekk la mu ngi nii nii lañ ko jàppoo ndax nii la ma ko waxee woon nee na ma di ka dem ba ndey faatu ndey faatu mu tuuti mii joxañ ko anamu dana dund bay fay bis bii dem si wal barke salaatul fatiha lay fekk ma ko ndey faatoo ngi nii toog papaam ma seeral ne moor muñ leen di ngeen dund ba lay faatu fay bis bi dem si wal mi ngi nii looloo am sëñ Tayru yal na la yàlla may fan gudd kaan wéral say cër jubal laak say bokk yàlla yokk maqaama bi lu ñu am rek gërëmeelu ko lu ñu am gërëmeelu ko wax naa leen fii sa kër fii tox naa ko fii say rakk ngi toog ma leen samay rakk lañ ku ma ji dekk loxo dama lay wormaal tay roy sundub sëriñ fekk naa fii sama najaay Ibrahima fii ñëw fi vacances ba may ñibbi yaa am bindal téere yu ma yóbbu waxuma laa gone yi te leen mag ñoom ñëpp kat ma tafsir rek ma ci maxoon tam si ma magee donc waaw xam nga man yéen may seen may seen may seen seen rakk yaag lay ci sec waaw lii mu fi bàyyi it nag damay ñaan yàlla nag alay teeru lii mu fi bàyyi yàlla gën leen boole ñu gën a jubóo gën a ànd yàlla yokk seen i wërsëg dëppale lépp ñii seen mu dëpp leen seeni borom kër ñi seegul yàlla may leen borom kër ñiy jàng yàlla may leen lijaasa bañ tekki ci réew mii di senegal waaw léegi nag léegi nag li may tëjee moom xam ngeen dama leen koy seedeel lii duutkat yi yónnee ñoo Amadou Ba Macky sal nga ma koy nëbb dama ci cër nag ah léegi-léeg gars yi ñëw leen fii de sama jaama sama bàjjan faa ña nga ko jur jox leen ko million ñu jox million ma ñibbeeg ma dara damay ñëw gars yi rek ku nekk aji dara di kii dara boole ma wax leen ñu jox ma million ma ñibbi Dakar waaw ajo tàllal leen ñun yàlla def ko nag yéene leen ngeen bugg lépp بما وارد يا ذلك من تبات وجه التي لو كانت بالوجود لتدكك الوجود وانهرق وسار محل العدم نسألك بتلك التبات وجلالتها وعاصمتها أن تتلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين إنك على كل شيء قدير اللهم يسر ولا تؤثر علينا